yéenewul nit safaan wala parce que ku nekk am nga njaboot ku nekk suñu sañoon sa biir njaboot ngay nekk mais nag les règles sont dañu leen defar pour que ñu leen di respecter. est que les règles euh, sont appliquées euh, à à tout le monde bu waxee loolu mooy tey jii ni gis nañu ce qui s'est passé a la DG euh, Keroog. Mm. Euh, fiche de parrainage retrait yi ñëpp ñëw jël ah tranquillement mm. même ñoo xam ne sax xam nañ ne tekki wuñ dara. Mm. ñu jox leen ñu dem mais Ousmane Sonko quand il a fallu moom mu demander mandataire am plutôt dañ ko ko refusé la. waaw loolu pour une fois. Euh, voilà gars yi jàppoon nañ ne dinañu rétablir li nga xam ne mooy yoon mais fi mu mujjee encore. comme ni ko ñenn ñi yaakaare woon rek. nekk ñi nga xam ne sax jànguñu droit xamuñu luy droit dañ siy joxe seen avis parce que rek ça tombe sur une personne boo xam ne opposant la dañuy ni loolu moom moo tax mhm. mais je j'estime que DG bu ñu ko defee am nañ fu ñu ko teg suñ ko tegul fenn nag na jurisprudence on on parle souvent du cas Karim Wade. Mm-hmm. ki nga xam ne malgré sa condamnation euh, malgré euh, le fait que warul woon bokk ci élection yi permettre nañ ko mu def loolu et la conseil constitutionnel. Mm-hmm. moom moo amoon le dernier mot. fa lañ ko décidé. xam nga soo gisee ci yaa ngi wax jurisprudence parce que justement effectivement des euh, juge bi jugé wax li keneen wax leneen. Mm-hmm. ñu ni non kii li mu wax tey antuwul parce que d'habitude bu liy amee lii la tëral donc ça aussi je pense que du loo xamante ni nii ku si nekk da nga si mën a joxe sa avis rek mais quand pour faire la démonstration sur le plan juridique kooku dañ koy bàyyi ak spécialiste yi mais je considère que ki nga xamante nii tey jii yow wóor na la ni nekkul ci liste électorale yi man tey jii su ma nekkul woon ci liste électorale yi du ma sonnal sama bopp di dem di jëli ji ay fiche de ay fiche de parrainage